asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant euh, dellu siwaat nañ beneen yoon tey ci seen émission si laa bokk tànnaloon leen ay points yoo xamante ne si la ñu war a waxtaanee bi mooy euh, nemmeeku nañ temps yi cas communautaire yi ni muy yokkoo nii euh, te xamuñu fan la jëm ak ñun beneen bi mooy dund bi nga xamante ne état bi daf ko war a dimbalee jaam yi xam nga nan la ñu war a def nan lañ ko war a organiser ba ku nekk xam nga jot si waaw tey point yooyu lañ leen tànnaloon bugg leen ci indil suñu. xalaat par rapport ak situation boobu noonu waaw léegi nag dañuy tàmbalee ci euh, euh, cas communautaire yi instant bi nemmeeku nañ ne cas communautaire yi mu ngi yokk xam nga par benn benn xam nga chaque jour bu ñu yeewoo rek benn cas communautaire day yokk chaque fois bu rek benn day man nag instant yi nag xam nga mm, affaire yi daal doy na waar daal waaw. comme comme comme li nga wax rek bon li nga xamante ne moom moo concerné wàllu cas communautaire yi bon man feebar bi bu mu tàmbalee. jour bi nga xamante ne ci laa njëkk am tiitaange moom mooy jour bi Sénégal njëkkee enregistré cas communautaire boobu laa xamante ne ni gars yi pour pour ñu maîtriser pour ñu canaliser li nga xamante ne moom mooy feebar bi ça devient de plus en plus difficile parce que bu ñu ne comme am na ñoo xamante ne ni ñu profité wu si sax parce que du ñu comprendre lan mooy cas communautaire parce que cas communautaire pour nga wax ko de façon très simple moom mooy nit koo xamante ne dafa am coronavirus te xamul fan la ko jëlee. Mm-hmm. comprendre comme kii wàll na ko kii kii wàll ko kii kii wàll kii gars yi wàllante ko ba xam ba nga xamante ne ni ñenn ñi wàll nañ leen ko te ñoom xamuñu kenn kenn kenn kenn koo xamante ne moom am na li nga xamante ne moom mooy coronavirus. Mm. donc jour bi ñu njëkkee enregistré loolu Sénégal man ci laa gën a ci laa gën a am tiitaange xam ne nii lii. doon na doon na loo xamante ne instant yi nii pour pour pour pour gouvernement bi doon maîtriser feebar bi canaliser ko dëgg dëgg dëgg dëgg ça devient de plus en plus difficile loolu moom moo tax comme li nga wax instant yi nii ku nekk da ngay jéem a wax rek ni nga xamante ne noonu nga yaakaaree ni yow boo bu bu ko bu ko bu ko guvernement bi defee comprendre feebar bi dinañ ko mun a canaliser man personnellement de mon point de vue man dama doon xalaat comme par exemple instant yii nii ngay dégg parce que parce que ay ay ay ay ay côté la nga dégg ñu ne la géej ngay dégg ñu ne la Kër Massar Kër masaar instant yi nii da ngay dégg chaque jour gars yi di enregistrer nit ñoo xamante ne dañuy am ay cas communautaire mais mais pourquoi pas man sama xalaat rek laay joxe de mais pourquoi pas confinement total boobu noonu ñuy wax mais confinement total yooyu noonu nañ ko limité man su doon sama sago noonu la ñuy def de comme Guédiawaye comme Kër Massar instant yi nii moom cas cas communautaire yëpp foofu lañ koy enregistré donc da ngay xamante ne densité bi am ci ci feebar bi instant yi ni muy wàllantee foofu noonu donc man su doon sama sago confinement boobu noonu comme li ñuy yow denrée alimentaire yooyu noonu ñu jël ko def ko benn partie boo xamante ne instant dañ koy limité ci waa Kër Massar ak Guédiawaye ak Yëmbal parce que côté yooyu noonu ñoom ñoo am ñoom ñoo am cas communautaire ñu leen pendant 14 jours comprendre ñu jël leen en comme instant yi nii Macky Sall nu mu ko jëlee décision def ko ci nga xamante ni moom moo moom moo jëm ci wàllu Sénégal bi yëpp ñu ñu ñoom ñu ne ñoom ñu doon priorité yi ñu def leen confinement total pendant 14 jours bu ko defee yow sa ak gouvernement bi seen seen saytu ak seen xalaat dinañ xam ñi nga xamante ne instant yi ñoom ñoo am tawat bi wala ñu ko amul tawat parce bu ñu seetaanee gars di am ay aller retour di dugg di génn di am aller retour di génn affaire bi day continuer di propager. daggu daggu la xam man lan mooy sama problème ñun balaa ñoo wax état si boppam xam mais population bi si boppam quoi. comprendre man population bi si boppam laa njëkk a xalaat xam nga la moo tax bi rek a bi ñu ngi gis nañ couvre-feu bi nan la ci sénégalais bi doxee ñenn yenn sénégalais yi bokk xam nga nuñ ko téewee couvre-feu bi ñu ko téewee xam nga respecté wuñ ci daara comprendre nga respecté wuñ dara ci couvre-feu bi heure bu leen neex la dugg heure bu leen neex la ñuy génn gars yi dem ba benn instant sax foo lañ ko jàppee xam nga génn yuuxoo policiers yi daaxanteeg ñoom daw dugg ci biir kër yi xam nga déjà ñun psychologiquement pareeguñu pour dund couvre-feu bi ñun ci xam nga boo buggee confiner yenn zone yi nga xamante ne par exemple tey xam nga bu ci bu ci mel ni Géejawaay Kër Massar ak affaire yooyu noonu xam nga gis nañ li fay xew quoi xam nga si wàllu si wàllu couvre bi xam nga mais ñooñu même boo leen bëggee confiné total xam nga day xaw a doy waar comprendre maanaam il faut population bi si boppam ñoom ñu gën a comprendre lan mooy cas moo comme ni nga ko expliqué léegi moo tax loolu am na solo trop ni nga expliqué lan mooy cas communautaire xam nga gars yi ko parce que bu ñu bu ñu naxantewul ba léegi am na ay yoo xamante ne ba léegi affaire yi ay kaf lañ ko jàppee de ba léegi ñoom ñu ngi ci ay affaire bi dëgg la wala du dëgg ay day jàpp nit ku ñuul ak wala du jàpp nit ku ñuul ak xam nga ay feebar bi feebaru tubaab la ak ay ba léegi am na ñoo xamante ne ñu ngi xalaatee noonu. waaw ji xam nga xam nga côté boobu li ñu fa wax ah, dëgg la quoi am na ñi xamante ne peut être ñu ko mais xam nga jamono ji lu waay jàpp yow la ko parce que tam benn affaire moo am plus de un mois avant un mois gars ngi wax si feebar bi nu mu demee nu muy développé nu muy ci léegi nag am na li nga xamante ne nit ki la sa gëm-gëm moom kenn du la ko forcé xam la parce que yaakaar naa ne moom ah état ak sénégalais yi ku nekk ni nga war a sensibiliser sensibiliser nga ko nit ñi léegi nag fekkee dañaa sensibiliser nga ne yow bëggoo yow yaa xam wax dëgg fa yàlla kenn du la forcer ne la da nga koy def lii wala lii wala lii xam la mais problème mooy daan ñuy daan ñuy teg nit ñi bu la dalee dañ lay daal man fenn rek laa waxee si cas communautaire xam nga cas communautaire dëgg la quoi bëri na Sénégal parce que man pour man cent cas cent cas contact moom gën a benn cas communautaire xam la mais tamit. pour man matuwaay bi si gën a rëy xam nga ban matuwaay matuwaay xam la mooy len yow règlement yi joxe li ñu joxe ne yow loolu nga war def pour doo am corona bi nga koy def su boobaa même contact bu amee même yow cas communautaire bu fekkee yow la xam la fekk yow yaa ngi def li nga war a def soo ñëwee yaa ngi raxasu xam la yaa ngi sangu yaa ngi changé say xam la peut-être su boobaa bi yow risque bi doo am risque si yow xam la parce que tamit nekkul lu ñuy canaliser. kaa parce que xam nga instant yi Ablaye mi ngi naan noo Kër Massar Kër Massar la nekk. xam la tey ji mën nga tëj waa Kër Massar mais si benn semaine xam la affaire bi fees feneen xam la soit da ngay total xam la wala nga xool looy def. waaw comme comme man man gisee lan moo tax man ma analyser ko ci sens fi angle boobu noonu comme gars li ñuy wax instant yi fi ñu toll nii ñun ñun en tant que sénégalais dangay ngay xamante ne lii lii nii di di di confinement total. pour Sénégal dund ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg loolu problème la suñu nag déjà suñuy moyen mayuñu ko comprendre nga économiquement parlant da ngay xamante ne ñun Sénégal dañun dañoo am insuffisance dafa am carence fii comprendre nga ñun taaba taaba comme ni ñu koy waxee chaque jour ñun taaba taaba lañ xam da ngay ñëw sénégalais day dund du jour au jour li ngay liggéey tey mooy pour dépense suba la li ngay liggéey suba pour dépense gannaaw suba la donc confinement total bu amee ci ci ci territoire Sénégal yëpp donc loolu day doon problème ci ci ci ci Sénégal mais comme ministère de la santé ñoom xam nga am na yoo xamante ne ni ñun en tant que citoyen nii kese du ñu xam mais ministère de la santé ñoom il son ñoom dañoo nekk ci au cœur des choses mm. ñoom dañuy xam cas communautaire yi. site bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg point bi nga xamante ne fa la cas cas communautaire yi bëri ñoom dañuy xam fan la comprendre man dama ne comme instant yi nii boo gisee ñuy ñuy relever comme Kër Massar jaaykatu ndekki boobu noonu ñu waxoon dafa am dafa amoon dafa amoon coronavirus comprendre nga jékki-jékki rek ñu commencé di la relever di la génneel ay cas communautaire cas communautaire yu bëri Kër Massar tey ñu ñëw ne la amaat nañ benn cas communautaire ñu ne la 11 cas communautaire yow 11 cas communautaire 11 cas yoo xam 12 yoo xamante ne ni ñoom xamuñu fan lañ jëlee feebar donc xam nga ne c'est grave raison pour laquelle ma ne la la plupart cas communautaire yooyu noonu Louga la Géejawaay ak Kër Massar donc ma ne instant yii nii su man sama sama xalaat bu gàtt. da ngay ñëw comme Kër masaar instant yi nii nu mu toll l'étendue du territoire Kër Massar comprendre nga tëj ko boo ko tëjee nga def ko confinement total pendant 14 jours waaye confinement total pendant 14 jours euh, euh, euh, Louga confinement total ci ci zone bu mu am confinement total pendant 14 jours donc dans ce loolu du la tere yow da ngay yeggali sa liggéey xaar yàlla boo gisee zone zone xaar yàlla mu am mu am mu am cas communautaire nga tëj zone xaar yàlla comme boo ko def boo ko établir noonu zone par zone nga kay def confine nga koy ngay ngay ngay ngay confinement total pendant 14 jours donc dans ce je pense que ni di nga mën a établir di nga mën a génnee ñi nga xamante ne ni am nañ am nañ coronavirus ci zone boobu noonu. man li may damay damay wax ne damay commencé fi nga fi nga mujjee lay wax ne yow kenn ñaanut yàlla am feebar ba pare di ko wàlle kenn ñaanut yàlla am feebar ba pare di ko wàlle te loolu dafa doon loo xamante ne principe ci ñëpp la. man ñaanu ma yàlla am feebar ba pare euh, ne toog benn instant ñu ne ma man mii détecté nañ ma man xaw ma ko man mi ko am xaw ma ko pare ma koy ma koy wàllee keneen kooku dafa kooku doo doon responsabilité boo xamante ni ki ci boppam du ko mën a téye léegi nag man lu may jàpp moom mooy euh, li ñuy wax naan am na ay cas communautaire mais maanaam nit koo xamante ne dafa am cas yu xamu ko moom mu koy mu am xamu ko mais mu ngi koy wàlle ñeneen ñu xamante ne ñooñu tamit xamuñ ne kii mu ko kii mu leen jokkalanteel moom am na am na feebar te mu leen koy wàll loolu loolu mooy cas communautaire te lu ci gën a métti moom mooy euh, euh, suñu nji suñu njiit yi ñoom li ñu waroon jël responsabilité bu ñu waroon jël jëluñ ko dafa des ndaxte suñu confiné woon maanaam ñu jege woon bitim réew depuis le 2 lañ am lañ am cas suñu leen confiné woon jël leen les précautions qu'il faut te duñ am ay contact ba contact yooyu di mujj di mujj di doon ay cas communautaire c'est daa donc suivi bi ci boppam moom moo des te loolu dafa dafa doon loo xamante ne lu grave la ñoom seen responsabilité la woon ndaxte loolu su fekkoon defoon nañ confinement bi waxoon nañ ay ay ay ay zones yoo xamante ne ñoom foofu la ñu war nekk ñu def leen ay confinement def leen ay moyens consobo mais ñoom defuñ ko léegi dem nañ ba affaire bi ëpp leen doole léegi tey jii nii euh, nii ay bërëb yoo xamante ne man duma ma ciblé ndaxte par exemple mun nañ mun euh, cas communautaire moo xamante ne loo xamante ne day doxantu ji cas yi mun na nekk fii suba gannaaw soo mu dem ci beneen beneen quartier mu beneen quartier beneen quartier kon man du ma ciblé lu may jàpp rek moom mooy ñun ñëpp ñun ñëpp ñu sommes en sursis nous sommes en danger kenn ku ci nekk am nga am nga potentialité à 100 pour cent ne mun ko am wala wala keneen koo xamante ne ku la jege am na 100 pour cent mun ko am kon nag doo dafa jaadu loo xamante ne sooy def sensibilisation wala sooy def euh, benn communication da ngay dem sur le bas dangay wàcc si suuf waxtaan ak ñoom waxtaan ak population yi expliquer leen na leen cas bi nii lay demee nii lay demee moytu leen lii nii man man déjà man premier euh, euh, obstacle bu ma gis ne ne man par exemple lu may jël mooy dañ ne da ngay raxas sol da ngay raxasu ak ak saabu sol loxo ak saabu mais man dama naan sax war nañ gën dem sax même sangu sax da nga cee war a boole saabu dangay jël da ngay sangoo pare boole saabu ordinaire bi di ci sangu su ko defee feebar bi lépp lu takk ci yow mu dëñ su ko defee loolu soo ko defee yow nga xam ne di nga aar sa bopp di nga set nga wecc ndaxte yi nii fii lañ ko defaree ci euh, dëkk bi lañ ko defee te moom la ñuy utiliser kon nag nañu nañu jël gars yi jox leen ay moyens pour ñu dem sensibiliser booy loo rek la. mais xam nga tamit. pour maa ngi gis nga sénégalais. sénégalais dañuy dem ba dañuy toll benn moment boo xamante ne sénégalais xamul kuy comme comme sensibilisation kese kese kese kese kese sénégalais xamul loolu parce que boo gisee la moo waral violation couvre-feu comme comme Baba Ji bi li ngay wax am na se yenn sénégalais yoo xamante ne ni ñoom dañoo bàyyeek dañoo ñoom dañuy dem ak seen sago quoi comprendre nga donc gis nga gouvernement gouvernement si jëm boppam moom mooy jël li nga xamante ne moom mooy ay mesures pour stopper yenn affaires yi mu am ay yenn yenn yoo xamante ne yenn sa yenn sanction yenn sanction yoo xamante ne ni wala wala yenn décision yoo xamante ne ni loolu gouvernement moo koy jël imposer ko population bi comprendre comme Moussa li mu wax man je suis parfaitement d'accord gis nga gis nga gis nga pour éviter propagation wu li nga xamante ne moom mooy cas communautaire yi comprendre moyen bi nga xamante ne moom mooy moom mooy première bi nga xamante ne moom la ku nekk moom mooy ku nekk na jàpp ni moroomam dafa am feebar d'abord man su ma man su coronavirus xam naa xam naa ñun ñëpp xam nañu day rey da ngay dégg ay plus de 2000 morts aux États-Unis ngay dégg ay presque plus de 1000 morts dans les dans les dans les dans les pays européens donc ñun ñëpp xam nañ danger bi donc man su ma jàppee ni Baba Jibi bii am na feebar comprendre du cadre dama koy dama koy stigmatiser wala dama parce que feebar bi jarul ñu ñu muy demee noonu mais dinaa ko daw ba pare dinaa respecter li nga xamante ne moom mooy les mesures barrières comme Moussa li mu wax ku nekk bu ko jàppee noonu d'abord xam nga raxas loxo yi. mu sorante distance yi bàyyi si naan ataaya bi ñuy naan ku nekk daal li nga xamante ne moom la mesure ministère de la ministre ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ci wàllum santé ñoom ñoo dem càmbar affaire yi ba wax na ni si ñaa déggum la feebar bi lii boo ko defee dina la dina la muccal ci li nga xamante ne ni wàll beeg yooyu noonu nga éviter ko d'abord mais comme sànq li ma la gi nga sénégalais mu élage boo buggee dégg-dégg sénégalais moom moo xamul moom moo xamul comme par exemple ngay ñëw di naan da ngay sensibiliser da nga wàllu côté jël décision bu jotee da ngay jël sa décision. déjà déjà on n'a pas les on n'a pas les pour faire un confinement soo gisee soo gisee ñu commencé ñu couvre-feu bi nii di ko commencé de dix euh, de de euh, de vingt heures jusqu'à six heures looloo tax c'est que xam nañ ni Sénégal ci boppam moom moo mënta moo mënta dékku confinement bi. ah en plus ñoom def lañ ñu war a def def nañ ko pare ñoom c'est que ñoom xam nañ ne ne fii nii ndóol bi dafa accentuer c'est que nous sommes dans une situation boo xamante ne am ñoom dañoo bañoon sax ne ñun amuñ euh, am na benn euh, benn organisme bu génnoon ba PAM bu wax ne ne am na ci dëkk yu xamante ne Sénégal ndóol bi dafa ndool bi dafaa bari ñoom seen bopp ñoom ñoo ne ndool bi bi ñu génn ñu ne ndóol bi bariwu fi consor googu et cetera et cetera tey Covid 19 gi ñëw coronavirus ngi nii jël ay ay ay ko jël di ko jox ñeneen ñi pour ñu ci pour ñu ci naanaan ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo ñàkk doole ñoom ñoo xamante ne ñoom war nañ ne mën a jàppale te loolu si loolu dafa poser problème yow déjà yow nan nga mën a considérer quelqu'un koo xamante ne wane ne yow nga ne sa peuple amut ay amut ay ndóol tey jii nii Covid 19 ñëw coronavirus ñëw nga ñëw di leen bu bugg leen confiner ba pare leen jox ay ay dund ay conseil gu dund c'est sénégalais ci boppam ñoom société euh, ñoom li ñuy dund moom la ñuy dund ñoom loolu la ñu xam ñoom euh, nekk ñoom da nous sommes dans une société boo xamante ne ñoom ay socialiste lañ ñun nous sommes pas dans une yoo xamante ne ay individualiste lañ comme en Europe ils sont individualistes kenn bopp ak sa bopp fii nii benn nit ak ñaar nit ñetti nit huit personnes ñooy nekk si benn famille kon mënoo leen jël ba pare nga naan da nga leen da nga leen bëgg a jëb ci abe benn confinement boo xamante ne yow sa réew xam nga ne xel ne amoo amoo les moyens pour am lu ma jaaxal man pour man ah bi rôle na ko ñun dañoo ne tëdd leen huit heures ñu tëdd huit heures non mais mais mais xam nga moitié population xam xam nga quatre-vingt-dix pour cent quoi kon dix pour cent yi loolu day am xam nga parce que problème mooy lépp loo gis xam nga dina am dérive quoi mënta ñàkk xam la mais population Sénégal wax dëgg yàlla ak Covid 19 bi amul kenn du ñuy wax population bi xam na population bi lu ñu leen sant yëpp da ngay xool 19 heures lay jot day mel ni weeru koor gars yi mel ni kuy dem jënd xëdd ku nekk fii ci fii mi ngi waaj jot mi ngi waaj jot xam la heure Macky Sall buy jot ñoom ñëpp ku nekk dugg sa biir kër comme am la kon ñun loolu bi ñu war def def nañ ko ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo ñu disel quoi ñoom ñoo ñu xam nga déjà xoolal marché léegi dañu naan 16h ngeen tëj marché yëpp ñu tëj mais Auchan 18h day tëj la mooy différence Auchan ak marché yi. mais gën a organisé. mais euh, affaire yi du organisé affaire xam la la. ñun loolu nañ ci wax. non non non ba ba amee yëgal yi même bu ñu ci mësee wax même bu ñu ci nañ ci wax tey xam la marché ak Auchan benn la ñoom ñëpp ay jaaykat lañ xam la dañ jox heure ñoom ñëpp bi ñuy jox maanaam dañuy jox ñëpp heure parce que Auchan marché la. xam nga xam nga Moussa benn affaire laa lay wax xam nga seul euh, bon lu tax sax bëgguma xuus si boobu maanaam day génn contexte débat bi mais li ma la bëgg a wax moom bu ñu waxee même même bu dee quatre-vingt-dix-neuf pour cent population bi ñoom ñooy respecté heure bi benn benn yooyu di génn ñoom ñooy ñëw lor quatre vingt ne sacrifié wu nañ même bi ma waxee ne xam nga. ku comprendre sa affaire la sa nekkatul affaire am quoi suñu affaire la xam nga feebar loolu moo ci soof xam nga bu doon yow bu fekkente ne da teg dof affaire bi si yow lay yem coow jubul quoi comprendre mais cent personnes dañ koy teg si yoon benn nit boobu tegul si tegu ko si yoon ah, mooy rajeexe li gars yi joob yëpp sacrifice bi population bi def ah, ak effort bi état bi di def. comprendre mais ma rek lu leer ngay ñor xam nga xam nga fa lay ñor. waaw xam nga fa lay ñor. xam nga foofu état moo war def liggéeyam parce que xam li problème. parce que tey fekkee tey xam nga état fekkoon tey mooy li ñu xam nga feebar moo si garaaw feebar bi mu dal ñëpp moo garaaw bu dalee ñëpp dañuy dem benn wàll dootuñu am soo amee 98 wala 99 pour cent yi nga xam ne mu am benn 1 pour cent bi nga xam ne tëdduñu ñooñu boo indee maanaam fekkee li nga wax dëgg la quoi da nga def couvre-feu dëggantaan jaay ñu war a jàpp jàpp ñu war a jàpp kon ñooñu maanaam fat fat da leen di libéré leen di téye xam la parce que ñooñu parce que ñooñu bëriwuñu xam nga ñoo ñooy ñu bëri moo tax may la population bi def na lu ñu war doo sax. dëgg la bëriwuñu mais dañu nekkuñu si benn koñ boo xam te ne ngay dem fekk leen foofu buub leen yóbbu leen bëriwuñu mais dañoo dañoo dañoo dispersé wu dañoo tasaaroo te bu leen foog nañ comme par exemple tey dakaar ni ñu wanee image yi si Dakar ak ni ñu wanee image yi Thiès ak Touba gars ni ñu koy respecté xam nga yeneen ye bon bon yeneen gars yi noonu lañ koy respecté man sondage boobu 98 pour cent boobu sax laa xamul fan la ko gars yi comprendre gars yi parce que grande voie yi la ñuy wane yu mag yi la ñuy wane xam nga oto police yi jaar fa kërëb kërëb jàppal bàyyi romb fa comprendre mais am na ay ruq-ruqaat yoo xamante ne te ñu demee ba ci biir waxtaan bi di nga comprendre li ma bëgg a wax comprendre li ma la bëgg a wax maanaam am na ay ruq-ruqaat yoo xamante ne gars yi ñu ngi foofu di taxawaalu te xam nga lan moo lan lan moo gën lan moo a lan moo lan moo gën a garaaw mais même rek xam nga moo gën a garaaw par jàpp boobu ngay wax noonu comme la bokk na ci xeex feebar bi lu tax ñu tëj jumaa yi lu tax ñuy tëj marché yi lu tax ñu tëj feneen ak feneen parce que mënoo jëlaat ay nit da daj forfait kenn forfait kenn dajalewaat leen yóbbu leen fenn di leen tëj. comprendre la maanaam mesure yi état maanaam instant bi maanaam pour état bi jël mesure si yooyu noonu dafay xaw a sensible comprendre la yow boo jàppee dóor ñu ne dóor bi du solution duñu ay barbare affaire yooyu dugg na fii génn na fii comprendre boo pompeloo wee ñu ne non non waruñu pompeloo gars yi kërëb kërëb jàppal baay comprendre man chaque fois dama koy wax dama naan man ni ci mbedd mi mun naa ko gérer quoi. man man lu ma jàpp moom mooy moom mooy ji nga cas communautaire yi ñu wax nii sensibilisation bi ci waroon bi ci waroon nekk moom moo ci nekkul li mm. nga tey jii nii euh, soo demoon la mooy cas communautaire maanaam ki waaju waajoo xamante ne dafa nekk ci société bi wala dafa nekk ci communauté bi moom moom muy wàlle même xamul ne moom yor na feebar bi loolu mooy loolu mooy problème non loolu mooy problème xam xam la moo gën a grave mm-hmm. xam dafa tamit cas communautaire déjà coronavirus bi boo xoolee signes yi di manifesté wu si yow yëpp bu fekkente ne da ko am en temps normal sénégalais yëpp moom la ñuy ñànkonteel man dañoo dem ba habitué wu si ay soj xam nga ay courbature ay maanaam loolu dafa dem ba dafa naturel si ñoom ba bu leen dalee sax duñ ko sentirati. voilà te loolu nag pour ñu. xam nga ba pare am na ñeneen gars yoo xamante ne ñoo gën a garaawle. mooy ñoo xamante ne ñoom da leen di dal du duñu duñu kii benn symptôme xam nga sii ñooyu yëpp bu feeñ ci ñoom mais ñoom dañuy continuer di wàll nit ñi si biir gaale dama la ci doole rek dama la ci doole rek mooy maanaam yow yow dèjà yow mën nga am yéen yenn signes yi mais yow pour nga dem pour nga dem hôpital wala nga dem dispensaire sa problème nata yow da naan voilà boo demee dispensaire wala nga dem mais loolu benn affaire la loolu benn affaire loolu benn affaire moo ko waral de mhm. xam bi mhm. ñun xam nga nga population Sénégal en temps réel ñëwee ñu hôpital xam nga dafa am boo xamante ne da koy ñeme en temps réel problème bu amee nga soog ko gën xam la ñun fii seetlu ku fi sa bopp di métti wala affaire da nga dem jënd place affaire parce def ñu seen liggéey a am a acquérir doo ko am feer bay waaj a dee soo ko dem mais loolu xam léegi nag même mais dëgg la mais xam situation urgence mais problème dafa am li nga xamante moom laa xam ne en temps réel da koy am xam nga boo amee accès si dara xam la soo demee ba am problème xam la da bëgg di dem foofu mais boo xoolee ñun la moo tax ñun ñun Sénégalais si bopp même bu dul woon dara même bu dul woon feebar bi jékki-jékki nga xaw a feebar tur sa bopp di métti wala sa nga nga koy dem a dem parce que ñàkk fexe ko woon léegi ñu la feebar bi dafa am yaa ngi koy boo demee foofu ñu téye la na feebar bi comme am la parce que dafa am ñoo xam ne dañ koy ñemeloo nit Moussa loolu moom sànq loolu laa doon wax sànq comme El Hadj ni mu waxee instant yi loolu moom moo nekk li xamante ne le problème parce que instant yi fi ñu toll nii comprendre nga sénégalais yi sénégalais yi yow kenn bu amee feebar bi lan moo tax du ñeme manifesté wu parce que feebar bi instant yi nii sénégalais dañ koy stigmatiser comprendre nga boo amee feebar bi rek dañuy yaakaar ne ni yow yow comme dañ lay peuple si ñëpp ñoo lay bannir quoi comprendre alors que affaire bi demeewul noonu parce que boo demee boo demee supposons boo demee dans les dans les dans les pays européens ñoom nga xamante ne instant yi feebar fu mu fa toll nii instant yi déggum la ñoom feebar dañ ko jàpp comme maladie la maladie la comprendre ku nekk mën na la dal yow symptômes yi yow en tant que yow nga nga feebar nga nga nga ngay ut ku la faj nga ngay ngay ngay manifester yéen li nga xamante ne moom mooy symptôme coronavirus donc yow li nga xamante ne moom nga war a njëkk a def symptômes yi bu feeñee si yow mooy nga dem hôpital parce que loolu moom moo moom loolu mooy sa ndimbal yow déjà yow en tant que malade daal yow loolu moom mooy sa ndimbal mais xam nga nag moo tax comme sànq li ma wax gars yi dañu ko ñeme def parce que boo ko defee instant yi population fu mu toll nii dañu lay bannir a njëkk a defaat instant nga moom mooy ñu renforcer information bi renforcer sensibilisation bi si wàllum symptômes yi parce que boo xoolee gars yi information yi nga xamante ne moom la ñuy gën a joxe sensibilisation bi nga gën a xamante ne moom la mais comment faire pour pour pour se protéger contre la maladie loolu loolu loolu loolu boo xoolee sensibilisation boobu moo gën a jàll mais beneen sensibilisation moom moo war a ñëwaat taxaw parce que am na li nga xamante ne ni moom mooy ay cas communautaire donc cas communautaire yi dem na dem na ba nga xamante ne yegg na ci ay douze donc y a d'autres cas communautaires dans la société donc instant yi nii dañoo war a dañoo war a renforcer li nga xamante ne moom mooy sensibilisation bi pour ñi nga xamante ne ni dañuy génne symptômes yi ñu ñu am fitu ñu am fitu di dem hôpital ba pare te population bi du leen bannir loolu instant moo war a nekk priorité loolu moo war a nekk si yow su ma gisee li ñuy expliqué mooy après da ngay gis ne ni sénégalais bi dafa manqué benn civisme quoi effectivement n'est-ce pas léegi c'est normal éducation civique jàngale tur ñu ko école na koy mu koy mën a amee c'est-à-dire bi dafa am wàllam état bi dafa am wàllam tu comprends léegi nag comparato li nga wax tout aspect psychologique bu feebar bi waral gars yi di stigmatiser gars yi tamit loolu dañ ko développé parce que dafa am benn li nga xamante ne lañ ñu wan mooy la peur ak panique moo waral bu ñu la gisee yow da feebar bi dañ lay bannir c'est naturel la parce que peur ak panique bu ñu forcé la moom nga wax tout à l'heure ne ñee dañu dem ba comprendre c'est une maladie comme comme une autre ah léegi dañ koy gérer mais fii jëpp ñu dañu c'est une maladie comme une autre dañ la ñuy lan moo nekk suñu kaw bopp lan la. ragal ak tiit boo ko amee da ngay dee mais boo ko amee dañ lay bannir c'est normal léegi komo cas communautaire moom bés bu amee rek man dama jàpp ne sensibilisation bi ci war moom moo doxul ndaxte bu njëkk ba temps ba ñu am suñu suñu bëggee am seen kii seen vote yi suñu bëggee am élection wala électorat bu normal dañuy dugg ci dañuy dugg dañuy def porte à dugg ci biir di visiter di wax di expliquer gars yi na lañ war a def ak conseil googu noonu si seen seen nii la rouge la bii verte la bii kii ba maire yëpp comprendre affaire bi nu demee tey waaw actuellement fi ñu toll nii nguur bi dafa war a comme ça mais aussi aussi aussi aussi aussi su may ñëw la moo tax situation Sénégal tollu nii mooy li nga xamante ni dañ koy yàgg nëbb di ko sooxee di fenn ak moom di dem ak moom ba tey bone am day génn suñu éducation baaxul moo waral xale yi dañuy dëgër bopp mais ñi naan 2 pour cent ou 1 pour cent yiy traîner mais la moo tax ministre de l' intérieur joxe euh, comment dire c'est c'est c'est c'est laissez passer là. mais parce que man bon je sais li may njëkk a xalaat mooy amoon na njuuj njaaj parce que dëkk bi dafa bëri njuuj njaaj. léegi ñoo ñooñu doon 1 pour cent boobu ñuy wax est-ce que ñooñu bokk ñu woon si ñu doon njuuj njaaj man je ne pas c'est juste une supposition la wala benn déduction. xalaat la rek ah. léegi foo ma toll moom problème mooy problème mooy déjà soo xoolee ñooñu ñëpp ay borom xam la tout récemment lu fi xew ñëpp yëg nañ ko après affaire Iba Thiam bi xam la soo xoolee fii moom Sénégal moom les milliardaires sont plus protégés que les pauvres. loolu Sénégal de adduna bi non ma bàyyil ma adduna bi ñoo on parle du Sénégal on dit corona si Sénégal xam nga mais mooy mais non soo ko man soo bi day mel ni loolu dafa war a dafa dafa dafa.